salaamaaleykum suñu mbokk internet euh, ñi ngi fi nga xamante ni moom mooy euh, Nangour Fall mm. euh, ñëw ci village bi nga xamante ni ñi ngi ñi xamante ni dafa am cinq morts ci accident bi nga xamoon ne am na tey suba ak cinq personnes yi nga xamoon xamante ni dañoo ñëwoon ci ci xew bi maanaam def soog duñ def lu dul waxtaan ak nga xamante ni moom mooy imam bi fas yéene waxtaan ak moom papa ñu leen di di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di nuyu. di leen siyaar di leen baalu àq leen baal di leen ni mbir mu metti dal na ci sunu kaw dogal boo xam ne mi ngi bàyyi ko sunu borom ndax ñii nga xam ne ñoo accident ñi ci ëpp barki démb rek la seen papa gaañu maanaa ñoo ngi ci dëj bu yees màggatagul ñoom it topp nañu seen papa kon nag mbir mu metti dal nañu léegi. lépp lu ngeen xam ne mën ngeen ko ci wàllu ndimbal bu ngeen demee ngeen waxal ñu dimbali ñu ko ndax fii mu nekk ñu néew doole lañu gannaaw yàlla seen ndimbal rek lañu soxla ñu dara ndax ay gone yu ndaw rek lañu ki nga xam ne moo ci tane woon dafa doon doog a samp kër rek kon nag lu ngeen mën ci dimbali rek ngeen def ko ndax mbir mi dëgg la dogalu yàlla la waaye nag yàlla bu dogalee jaam bi da koy nangu. lépp loo xam ne mën ngeen ko daal ni ngeen ñu ci dimbale ndax lu ngeen ñu dimbale rek xeeb nañ ko ndax ñu néew dool lañu kon nag bëgg na dimmal lool ci kàttanu yàlla bu ngeen nu dimbale daal ñoo ngi sant yàlla bu baax di leen sant ndax yéen am ngeen coona ndax fa ngeen jóge ba fii ngir toppatoo si lii kooku wàllu jullit la kon nag gannaaw da ngeen dikk di seet suñu jàngoro bu leen bañ a wax sunu jàngoro ndax néew nañu doole ay néew ji doole lañu seen papa gaañu nañ te fii mu ne gannaaw yàlla li ñuy yaakaar mooy ndimbal rek lu ngeen mën ci dimbali daal ngeen def ko loolu daal moo ci sunu wàll ngeen baal naaq wasalaam. mais imaam naka ngeen yëgee xibaar bi. xibaar bi dañoo toll ci julli ci fajar bi jullee ba sëlmal Mansour moo dikk ni seen gone kat def nañu sok defe naa ni bari na ca ñu gaañu ma ka ah, soog mu ne waaw mu ne loolu de metti na suñu julli dañoo sëlmal rek jotunoo wësoo jotunoo def dara dañoo jóg noonu ñëpp ñu jaxasoo kenn xamu ci foo jëm boobu ba léegi jaaxle googu mu nekk ci kenn xamu ci looy wax kenn xamu ci looy def dëgg la mbir mu metti la nag ndax yàlla nee na du ma teg jaa mukk lu mu àttanul waaye nag dana ko teg lu metti ndax lii moom xam naa xëy na atténuñ ko ndax li mu wax ni laa yukallifu laahu nafsan illaa wus'ahaa loolu moo tax mënu ki waaye nag diis na ci nun lool daal mooy li ci samay xam-xam dëkk la mais bëriwul ay euh, kër yi nga xamante ñoo fi nekk ba sànq ñu waxtaan ak ndaw yi nga xamante ñoo fi dëkk ñu ñuy xamal ni dëkk la mais benn famille la lu ni mel nan ngeen koy mën a expliquer parce que même bañ ñuy xibaar euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy lim bi fi faatu nga leeral waale ñu ko ñaata lañu ak ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul ñu ngi ñuy naan euh, carrément que fi mu ne nii si dëkk bi ñun yéen ñëpp benn famille ngeen famille boobu noonu lan moo tax ngeen benn famille benn famille la. ñu dee ci kii bi li tax ñu di benn famille ñooñu ñëpp maanaam ki leen meññ mën nañ ni kenn la muy Maguette Diop moo leen meññ kon nag gannaaw maagi Diop moo leen meññi keneen ku ci dik fu mu mën a sile it day desiyaat ci magi Diop rek ndax ñu gaañu ñëpp koo ci topp te ci magi Diop rek lay dellu mooy seen maam moo tax ñu ni benn famille la ñëpp moo gisee mooy seen maam loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ ci xam fii ci kër gi de maanaam ñi fi dee mat na juróomi nit juróom daal ñoo fi gaañu ci ñu bokk ci famille bi am na ñeneen ñu fi gaañ ñoo xam ne dañoo dikkoon ci kii bi nag ci yëf yi ci xew mi ñooy foofu lañ gaañu waaye fii daal ñi fi gaañu moom juróom la juróom agun juróom daal lañ lu wax agun xam nag dana ko ëppam ndax ñeen ñaa ngi ca hôpital ba waaye juróom ñi daal moom am na. ñi ci jot a dégg euh, maanaam boo xool ci ay wàllu euh, nombre ñaata lañ. ñu góor ñi ñaata la ak ñu jigéen ñi nga xam ne ñoo ci góor ñi. waaw góor ñi ñett lañu. ñett lañu. ñu jigéen ñi maanaam kenn la waaw kenn la ñu jigéen ñi kenn la ñi ci àll bi it muy ñu jigéen ñoo xam ne dañoo ñëw gaa gaañu wax nañ ni ñaar lañ xaw ma ñett ñett daal lañ wax def naa xew moo fi amoon benn euh, tudd moo fi amoon si lañ ñoom nag si lañ doon euh, ñibbee si yoon bi far yàlla euh, musiba bi dal leen. waaw ngénte moo fi amoon bana sunu doom moo doon ngénte bi ñu ba ngénte li tas bi ñu xëyee nag ci leen mbir moomu dal ngénte moo fi xewoon loolu moo fi xew ngénte ci ngénte lañ dikkoon bi ñibbi ci lañu ñu defee soog bi ah loolu moo am. a xam ndax ñi nga xamante ni euh, ñoo ci ñàkk seen bakkan ndax ci dëkk bi lañ leen di denc am dañ leen di dañ leen di yóbbu ci ci yeneen village ñi fi dëkk daal fii lañ leen di denc ñi ci des nag ki yenn village lañ leen di denc am na ci ñoo xam ne caar am na ci koo xam ne caar la dëkk am na ku xam ne fii la jëkkëram dëkk waaye ay bokkam laa nañ ko nee dañ koy delloo tëngéej kooku moom tëngéej lay dellu am na ku dëkk caarit koo xam ne gaañu kooku sunu jarbaat la moom ñu di ko wax xaadim waaw mooy ci la bokk. jamono ji da ngeen di euh, ngir euh, ngeen euh, def li nga xamante ne mooy rob bi denc leen. bu ñu dikkee rek leen di denc. bu ñu dikkee ñu rob leen bu soobee yàlla. waaw. dégg bi amee yéen yan heure ngeen ko jotee yéen. man de ci fajar laa ko jóg bi ma sëlmalee bi ma jullee ba sëlmal man saa wàll boobu laa ko yëg boobu lañ ma ko wax ci jàkka ji gone yi demoon ci oto ba kat nee ñu oto ba dafa def soog mhm. bi fajar ba noppi daal boobu laay doog a yëg soog bi nan lañ koy dundi dunde mooy lu nu mën def ci rek ànd ak lu metti rek lu nu mën def ci ñi ca demoon ñi ca demoon ñëpp daanaka kenn di ko gul ña ca ci suba ba léegi ña nga ca nekk di lijjanti ñëwaguñu xamuñu ñu leen tee mhm. neewoon nañu daal leen yaakaar nañ leen jot waaye rek gisaguñ leen. jot nañ ci nee ñu de yaakaar naa ni jafe-jafe amul ci lijjanti yi xam nga bu fekkee ñu xaju ci hôpital yi ñenn ñu yóbbu leen ci jàkkee dajale boobee rek moo tax affaire boo xaw a jafe waaye du ñàkk a toppatoo moom ñi leen war a toppatoo toppatoo nañ leen ñi leen war a joxe it ñu ngi leen joxe waaye fokk nag mu xaw a déet tuuti. waaye yaakaar naa lépp dana lijjantiku bu soobee yàlla. Mhm. ñoo ngi toog di leen xaar. xamante ne moom mooy euh, ministre bi daf fee woon tey je pense que loolu tamit yëg ngeen ko si euh, hôpital bu mag boobu fële ca Louga mu am ay dikk yi nga xamante ne def na ko si famille yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu am euh, ay ay seen doom si ñàkk seen bakkan si boobule accident nga xamante ne drame la si suñu réewum Sénégal mu ne dina leen jox famille bu si nekk ñaari million lu ñu mel naka nga ko jàngatee. loolu ah ba tey noo ngi toog déglu loolu bu ñu ko gisee ñu xam ne li mu waxoon def na ko bu ñu ko gisulit ñu xam ne wax nañu ko te defu ko rek waaye amaguñ ci benn xam-xam bu dul boobu de moom daal gannaaw diggee ko te gisaguñu ko noo ngi toog di ko déglu buñ ko gisee ñu xam ne la waxoon def na buñ ko gisulit ñu xam ne la waxoon defu ko rek loolu donc boobu xam-xam donc dana ci amuñ ci leneen am na ñu jóge Dakar euh, si ji euh, nga xam ne ñoom nekk ci gouvernement bi ngir ñëw fii parce que yéen it euh, ñi nga xamante ñoo si décédé si seeni ay doom seeni ay ndaw kenn ëppalewu leen si si boobu boobule accident. ci suba ak léegi pour ñu bàyyi ko fa la ñëw dikk fii di seet dikk fii ci dëkk bi ba ne laa fi gisagun ci ñu bokk ci ñoom ah. kenn ñëw kenn ñëw man kay gisaguma kenn moom kay kenn raxagunu yéen daal laa fi gisaguñ ci ñu ñu rax mhm. gisaguñ keneen nag xaw ma lu leen tee ñoo ñoom gisaguñu leen. ban message ngay lancé ci loolu. Ah? ban message ngay lancé nga leen di wax lan nga leen di wax. kan ñooñu a ah, li ma leen di wax mhm. mooy bu fekkee boole nañ ñu ci nit ñi mhm. war nañ fee taxaw dikk jaale si bu fekkee boole wuñ ñu ci nag ah ñu xam ni rek loolu mooy seen ki nu féete ak yàlla mi ñu féetee loon rek waaye nag wax dëgg taxaw fi moom rafet na ndax. réew mi ñëpp a ko bokk te it tiis wi ñëpp a ko bokk te it bari na foo xam ne bu fa lu mel ni amee daañu fa teew wala ñu fa seen ndaw waaye gisaguñu seen ndaw gisaguñu leen daal moo gën a wóor gisaguñu leen. teegaguma ko bët de. teegaguma ko bët moom kay dara amagu fi moom daal li man li yéen fi jiitu daal moom daal yéen lañ fi gisagun <laughs> gisagun fi keneen waaw daal moom dëkkee fii amoo leen jafe ci wàllu dem ak dikk ndax ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jot ñun ñoo fi jot a ñëw bi ñu fiy ñëw xawoon nañoo am jafe-jafe ngir agsi fi ndax yéen ñi fi dëkkee am ngeen jafe ci wàllu dem ak dikk am déet aw ñu leen lu yomb ndax suñu li jàppandi ci ñun mooy sareet la day war di dem bu sareet bu sareet amul xanaa léeg nga gis oto buy dem rek nga lang waaye amul nag leen lu yomb li daal amunu ko noo ngi sukkandiku ci yàlla rek waaye amuñu leen lu yomb kat dikk fii yomb dem bi yombul yoon yi moom neexul moom yaakaar naa war ngeen cee xam dara amuñu làmp amuñu dara làmp moom amagul ñu ngi koy dig waaye joxuñu ko daal amaguñu dara daal li gën a wér waaw te li ñu war a def lépp noo ngi koy def ndax lépp fu ñu wootee daañu wuji bu ñu watee jotee daal leen wateel waaye amaguñu dara daal. Euh, ban message ngay lancé euh, njiitu réew mi euh, Macky Sall ndax gis nañu bu campagne jotee dafay taal ay otom dugg ci li nga xamante ni ñoom ñoo dëkk yi gën a ndaw ci réew mi gis nañu nag fii bëri na lu nga xamante ne manqué ngeen ko mu mu xam côté courant wala ndox wala sax yoonu dem ak dikk boo amoon message boo koy lancé ngir mu jàppale leen ko yéen ñi nga xam ne yéen fi dëkkee ban message lay doon message bi mooy ñi ñoom la fi ñoo war a fexe ba jàppale nu ba suñu loxo àgg ci moom mm-hmm. bu ko deful dara du sotti ndax nun mënuñoo àgg ci moom kon nag ñi nga xam ñoom la fi teg ñu di leen jàppale ba tax ñu mën a toog yoon ñoonu war a jàppale nu it ba suñu soxla àgg ci moom ñu dimbaleen ci lan ñu war a dimbalee mm-hmm. loola nag amagul xaw ma danaa am nit waaye amagul mm-hmm. loolu daal moom moom laa leen ciy tegal moom daal ndimbali daal bëreegul jërëjëf papa ñu leen koy jàll bu tubarkal ñu ngi leen di dalal ñu ngi di masawu seen coono fi ngeen jóge moom ñun xam nañ sëfoor bi li wax man xam naa ko sëfoor laa xam naa li mu wax yoone moom ku fi ñëw jafe-jafe rek na fi accès waaw waaye nag yàlla na yàlla fay ndax li ngeen def lépp ndax ñun li ngeen def mooy fi suñ kàddu àggul ngeen àggal fa sun kàddu te it mbir mi bu ñu waxantee dëgg metti na ndax ngay nelaw ba si cinq heures nangam rek ñu woo téléphone. ni la ñi fi jóge woon daal ñëpp kenn te nan la ko waxee daal dañ noonu la tëddee ndax soog bi bu nu waxantee dëgg même ku ci gaañu li boo ci jógee moom yàqu nga ndax oto ba ko romb ñun nañ ba ci ba gis oto ba la mel ku ko romb moom képp ku ne woon kii ci biir oto bii la nekk bu génneet moom nit kuy kandang kandang lay doon waaye nit normal mootu la nekk waaw beneen laaj bi am na laaj bi ngeen doon laaj eh, Ilimaan mu wax ci waaw boobu man def am na lu ma ci xaw a jaaxal tuuti ndax may lu ma ci xaw a jaaxal mooy man maay président xale yi ci ni koy waxee waaye depuis sot bi am ba léegi ak ku xam arrondissement Sakal ah commune Sakal lu mel ni am ba léegi ña dëkk euh, ci commune bi wala ñi ne ci maire bi ba léegi gisaguñ ñu taxaw ci taxawu même waxuñu ay taxawu bàyyi ba ngay rob ay nit ba pare nga ñëw di def waaye fa nit ka amee métit même boo ñëwee ñu ànd ceeg yow ñun dañuy gis ni ànd nga ak ñun suñu métit waaye boo toogee ba affaire bi jàll nga ñëw ak yenn yi dëgg la duñ la ko gàntal waaye dañ la séenu woon la foo xam ni fi la gis doy na waar waaw man man daxit man li ma gëm laay wax wax dëgg yàlla commune Sakal lii xew Ndangur ñu naan juróomi nit ñi naan juróom benn nit ñu naan yamagu fi ba léegi gisagun kenn koo xam ne ci commune bi nga jógee ñëw te bu ñu leen xëccoo dara ci commune bi ndëngu lay def seen baas waaw ñii ñëpp xam na loolu ndax loolu bu ñu ko waxul war mooy wax ji xam ne moo gën a nekk farata bi ci des mooy yéen bi ngeen ñëw yéen a gisandoo dëkk bi dëkk baa ngi ni ni kurus ndox ci kër amu fi courant amu fi yoon wu ñu mën a wax amu fi te bu ñu soxlaa kat fii mooy seen baas waaw léegi nag ñun li ñuy wax te ñu ko ñu ko ñëpp waxee lañ koy waxee comme yéen buñ fi waxukaay la boo xam ne buñ fa waxee ñi war a dégg daan dégg waaye ngal la ñi war a dégg nan xam ni commune Sakal ñu sonn nga fa bu amee ñu sonnul it am na ñoo xam ne gisaguñ seen bopp moom moom ci dara waaw ci commune Sakal Ndangour Fall moom ci la bokk ñu xam ne gisaguñ dara ci commune bi waaw ñoom ñoom ñoom ñoom ci leen bokk waaw loolu nag moom fi ñu koy wan a waxee mu jàll rek fi ñu koy waxee waaw xëy na tey du bisu waxam waaye nag lu mu ñàkk bisu waxam it am na ci yoo xam ni occasion yi nga ko mën a waxee ndax choc yi bu amee ni ngeen ko defee ci ñëpp fan ko defee comme ni ngeen waxee li ministre bi diggee ah diggee na ko man moom ne ma woon Louga demoon naa Louga damaa teel a ñëw ba ministre bi ñëw fekkuma fa ndax boo fii jaxasoo na loo xam ni boo nekkee Louga sa xel du dal ndax bu nee la yenn saa yi nit a ngi daw ne damay xaru xaroo ma dese ay jigéen kese nekk fi même boo nekkee Louga yow la ngay xalaat mooy est-ce que amul ñu xaru sa gannaaw kon da dawaat ñun danoo ñun ñëpp danoo dawaat ñëwaat ñëwaat fii waaw waaye daal boo bëggee dégg-dégg moom ah commune Sakal gisagun ku jóge ci commune ba depuis ci subaak léegi taxaw fii gisagun ko wasalaam loolu daal moom moom looloo am. Mhm. alors ah, comme ni nga ko waxee bu ñu ñëwee sànq yéen ngi doon expliqué ne def bi ngay yégee xibaar bi euh, boobu léegi yéen a ngi defal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi. waaw sax mën nañoo euh, nga expliqué tuuti euh, nag doon dundee ñi xamante ni ñu ngi doon jooy waaye ñun sax dañuy jooy pour boo bëggee dégg-dégg mhm. man jóge naa fii suñu digg ak caar ñaata kilomètre la. yóbbu naa fi ñëw naa fii. dem naa suñu dëkk Kaïba ñaata kilomètre la ah man dem naa Kaïba di wuti oto fekk oto boobu dem ba ma ñëwee ci kër gi li ma fekk ci kër gi lépp jaxasoo ma fekk fi keneen koo xam mi ngi ci caar mooy fi suñu mbokk la moom it ñu ni doom da cee gaañu mu lu ne muy day xaru day def lu ne te boo li may xalaat mooy li muy romb di jàll ak teen bi te nit ñi bàyyiwul xel ma dama ànd ak moom bu yóbbu seen dëkk ba ma àggee la fii laa fekkaat ba mu tëbee ni tànjang affaire ba am na ñoo xam dañoo tëb daal ci sama kaw diw dee na diw dee na ma leen kenn deewul kii lim leen wax waxamu ko kii daa tiit defal leen ni booy wàññi ko at saret bi ñu wàññi ko at ñëwaat fi bu ma ñëwee laa doog a dem Louga ñun daal ji soo ba léegi boo bëggee dégg dëgg métit moom ñu ngi koy dund waaye nag boo dégg bëggee dëgg dëggit wax ji na ko waa commune Sakal dégg waaw Fara Diop président ànd defar ndangur moo ko wax commune Sakal bi affaire bi amee ba léegi gisaguma ko taxaw présenté wu dëkk commune Sakal gisaguma ko waaw wasalaam gisaguma ko man maa ngi leen nuyu ginnaaw bi ñu la jaalee li ñu bokk. maa ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant di kontaan ci seen taxawaay bi wax dëgg yàlla affaire bi fu metti di yam yam na fa ndax samay doomi càmmiñ lañu ngénte la ñu ñëwoon fii ki doon ngénte it sama doomu càmmiñ la léegi bi ñëwee fii ci ngénte li xale yi xëy ni dañuy ñibbi ci orelu ngiig bi ñoom ñëpp ñu àndandoo suñu waa kër ñi léegi bi ñu demee ba ci orel bi ndikit yoote def nañu soog ci yoon bi te nun yëguñu ci woon dara noo ngi xëy suba rek ñu woonoo ni orelu ngiig bi am na soog bi ñu ko waxee ñu nit suñu gone yëpp ña nga ca ñu woote waat ñi demoon ne gone yi xaaj bi yëpp dee nañu léegi ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a gaañu sama mag bu ma bokkal benn ndey moo leen jur mag ak rakk lañu njaboot gu sew ruuj lañu yor sama mag bi nga xam ne moo leen jur bim gaañoo léegi ay ñetti weer lay toll seen yaay yaa ngi nii di muur billaahi kenn foqeegu ci ñoom ñëpp nii lañu demee ñoom ñaata ñoo bokk benn ndey sama beneen doomu càmmiñ moom itam kooku maag papa ma bokk ben ndey moom it gaañu na jabaru sama beneen doomu caamiñ moom it tëngeej la dëkkoon ñëwoon ci ngénte li gaañu na sama beneen rakk bu jigéen doomam gaañu na sama beneen doomu caamiñ bu dëkk fële bu góor moom it gaañu na kon xam nga ne yëf yi yëpp ci sama bopp la tegu wax dëgg yàlla fu métit di yam àgg na faak noonu mais nag nu delloo suñu xel ci yàlla te xam ni yàlla moo nu joxoon xëy na yàlla soxlaa nii wax dëgg yàlla ku ni méttiwul daa ci sa kaw bi wax dëgg yàlla ba ñu xëyee kër gi ba ñu xëyee balee kenn lekkul kenn ñëpp àndandoo di jooy ëtt yi ñëpp àndandoo ndax ëtt bi ba balee yëpp ku ci am ko ku kër gu mag la kenn kenn kenn kenn lekkul kenn naanul dëkk yi dend ak ñun ñëpp dañoo fàq ñëw fii ku nekk ak seen jooy yi bañ xëyee ba léegi ñoo ngi toog ak sunu jooy yi xam nga ni kon lii metti na ci xol metti na ci xol ndax lépp benn famille lanu lépp benn famille lanu wax dëgg yàlla metti na ci xol waaw noo ngi ñaanal sunu njaboot gi yal na yàlla xaare leen àjjana ci barke Seydina Muhammad loolu rek lañ doon ñaan jërë ngeen jëf gërëm nañ leen